boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xayril anbiyaai wal mursalin muhammadin ibnu abdallah wa ala alihi wa ashaabihi zawi ridwaani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri waadu xuqdatan min lisaani yafqahu qawli bokki jullit yi bokki taalibe yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu lillahi wa rasulihi di leen ndokkeel di leen tatagal ci daje bi nga xam ni ci lañu leen fekk muy daje lislaam waaye di daje boo xam ni bu mat di dajee la ci waxtu yu ne ci jamono ju nekk ndax li ngeen ci taxawee muy ñaanal ñi nga xam ni ñoo jiitu ji ca barzaqul muhammadiya ca ginnaaw boo xam ni wane nañ gannaaw ba dem amuñu lenn loo xam ni bàyyi nañ ko gannaaw lu dul ñaan yi nga xam ni dana leen ko ñaanal ci àdduna mu fekk leen ca béréb yooyu ñu nekk mu mën leen a fekk ca béréb yooyu ñu nekk di barzaq ngeen taxawee ku nag ca li ëpp ci ñu ko taxawee di ay ndaw jeexal guddi gi yépp ci loolu yàq seeni waxtu yàq seeni nelaw te loolu rekk yëkkati leen ngeen di ko dundal ci alxuraan waaye di ko dundal ci salaatu ala di ko dundalit ci kon lépp loo xam ni jàng ngeen ko fi ci alxuraan walla ngeen def ko ci ay salaatu na bi yàlla na suñ borom yëkkati yool yëpp jëmale ko ci jëmm yooyu nga xam ni moom ngeen am pas-pasu ñaanal leen ngeen sàkk woon ci jataay bi ku leen waxtaanal ci fàttali leen ci li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam bi ñëw te kenn ku nekk dinga nga dajeek moom te du jaas ci kenn waaye it lenn ci njariñ yi nga xam ni am na ci guddi gi ngeen di taxawe waxtaan woowu nag bi ñu dajee ñu xalaat jël ko teg ko ci loxol kenn di boroom xam-xam di ku ñu xam ci dundal islaam waaye di ku ñu xam itam ci waxtaan yu am solo yoo xam ni da koy faral di def te yépp jëm ci gindee waaye lépp di doon luy jariñe muy kan Cheikh Mouhamadou Ndiaye di jëwrin di kenn nit ci ñi nga xam ni ñuy dundal yoon wi la ci xam-xam waaye itam bokk ci ñi nga xam ni ñu mat di teewlu lañ ndax seeni wax day jariñ te bépp bërëb boo xam ne it teew nañ fa ñu bàyyi leen xel képp ku ca doon taatan ku nekk da nga ca jariñoo kon kàddu yi duñu ko guddal dañuy jël micro bi jox ko su ko defee mu duggal ñu ci mawdon bi nga xam ni moom la indi ngir fas ko yéene waxtaane ak ñun ñu déglu ko nag bu baax la ko ak nopp waaye ñu teewloo ko ak xol ndax lépp loo xam ni mi ngi ko yëkkati ñu mañ ko dégg te buñ ko déggee ñu jariñoo ko kon Seex Muhammad bismillah auzu billahi fi sirrin wa fi alanin min sharri iblisa xaytu inqada wa rakada naqulu ba'da libtidaa bil basmala walhamdi wassalaati thumma alxawqala rabbi a'in al abda li yutimma al qasd awnaka ya muinu wa bika nastain wala xawla wala quwata illa bika ya rabbal alamin bokki jullit yi bokki taaliba yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi am mbégte ci teew ci jataay bi di jataay bu am solo ni ko sëriñ Abdou jiili mi waxe di jataayu fàttaliku ay way dawlu yoo xam ne ñoog ñoom ñoo fi bokkoon di dund ñu dem bàyyi nu fi te daañu leen fekki fàttaliku leen di lu war di lu yey ndax lu leen di jariñ lay doon fàttaliku leen ci ñaanal leen sarxel leen ndax ñoom seeni jëf dog na amatuñ dara luñ mën a jëf lu leen di jariñ foofe ñu nekk lu dul rek ñiñ fi bàyyi woon seen gannaaw waxtu wu ne ñu leen fàttaliku di leen ñaanal wala di leen sarxeel yool ba di leen fekk foofe ñu tëdd bis bii nag di bis bu am solo boo xam ne ñu ñàgg koo taxawee di bisu fàttaliku way dawli yi muy lu am solo lu mat a bari lool ndax waxtu wu ne ak jamono bu ne warees na di leen fàttaliku waaye nag ci defeet wii tamit ngeen ko defee am na solo lool mooy jàpp benn bés woo am gi jàmmee yi xarit yi wëllër yi ak dëkkandoo yi ñëpp teew yendoo jàng alxuraan xasida yendoo zikkar yendoo bernde te yool ba lépp yéen ko mboolem way daw luy jullit ñi te ñëpp xañ nañ ci ndax sun borom ku yaatu la ni ko sëñ Abdou Khadir waxee nag xam naa ne waxtu wi sori na lool ba tomb bi nga xam ne waajaloon nañ ko ngir fa yéen koo laayante biir waxtu wi dana nay ci nu man koo yaatal nañ ko bëggoon a yaatale waaye lu ci waxtu wi may rek nu sant ko yàlla nu waajoonu tomb rek bu jëm ci loolu ndax ni ko suñu ma pend waxe léegi ñun ñii fi nekk di dund te demaguñ la waxtaan wi di jariñ alxuraan ji xasida ñi doon def ak bernde yi way dawlu ya dem ñoom lay jariñ donte danañu jariñ noonu itam ñu ko doon def waaye nag jëmmi waxtaan yi moom nun lay jariñ ndax nun lay fàttale ndax waxtaan wi du lenn lu dul rek bàyyiloo xel suñu bopp ci sunuy taxawaay ak lu ñu war a def ak nu ñu war a waajale bis boobu yi nga xam ne du jaas kenn ci noonu kenn du ci mucc muy faatu thème biñ tàmboon nag ay tomb yu bari la fasante ko waaye lépp rek benn mawduu bi la muy axbaarul mawt wa axwaalul axirati wa ma yataallaqu bihima dee ci boppam yi ci aju ak mbiri àllaaxira ak ya ajo aju mooy tomb bu yaatu boo xam ne jéem nañ ko tënk ci ay tomb yu néew waaye xëy na waxtu itam fi mu tollu amaana du ci maye lu yaatu kon barab bii nu nekk mi àdduna day njëkk a fàttaliku rek lenn ci ay mbiram moom àdduna ak nettali yoo xam ne gaa ñu baax ñi nettali nañ ko ci aw melokaanam waaye ak i njariñ nag ndax adduna am na njariñ ndax ci lañuy jagale kërug àllaaxira buñ demee ci silkul jawahir fi axbaari sarair téere bu mag boo bi nga xam ne sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim radiallahu anhu moo ko taalif ma nga cay wax ne waalam ayuha al ax fi llah ann raxata dunia ayaamun qalaail wa aktaruha munaqasun bitaabi wa mashubun bitaab binnasab yow sama mbokk mi nga bokkool ci yàlla xamal ne adduna kët am nooflaayam ay fan yu néew la nooflaayu adduna ay fan yu néew la te nee na lay ëpp ca fan yooyee ca bis yooyee la ca ëpp ci bisi adduna yooyu daa jaxasoog ay coono ak i tiis ak i métti loolu la jaxasool tey ci sababu su adduna ci la nuy amee nooflaayub alaxira alaxira ji nga xam ne mooy ad daa imatul baaqiya mooy sax te mooy des waaye mooy wal mulku alladi la fanaa la alaxira mooy nguur gi nga xam ne du jeex mukk nguuru àdduna lu mu rëy rëy lu mu bari bari doole day jeex waaye alaxira moom nguur ga du jeex mukk la fanaa lahu wala nihaaya mu dellu wax ne kon dana yomb lool ci ka am xel ci ka am xel mu muñ bis yu gàtt yu néew yii muy bisi àdduna yi ndax lu fi waay gudd guddaaw fan day jeex kon su jeexee gàtt na alaxira nag du jeex ñaata ñoo fi jaaroon dundoon at yu baree bari bañ demee ak léegi at yañ dundoon bi ñu fi jógee ak léegi at yooyu at yooyu ñoo ëpp yañ dund Seydina Suhayb bu ab yonente la dundoon na ñett junni at ba mu demee ak léegi ay millions yi at la yonent yàlla nooxin ab yonente la dund na junni at ak juróomi téeméer di woote jëme ci yàlla ba waa jamono ñi mujj ci jamono seeni fan gën a gàtt ndax lu la gën a mujj jamono rek moom la ñoom la seenu fan gën a gàtt fi mu toll nii jamono ji ñu ne gis ci ku dund téeméeri at lu jafe la ku dund téeméeri jafe la kon bi si gàtt la moo tax mu ne ki am xel war nay muñ bis yu gàtt yooyu ngir mu am nooflaay bu sax dàkk li yanaala raxatan daaima goo xam ne du jeex mukk moo tax moom sëriñ bi mu wax ne al imaamul Ghazali sunu sëriñ radiallahu anhu nee na leeral na mbirum àdduna ci ay misaal ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne adduna ni muy njabare nit ki da wax ne na ngeen wattandiku adduna ndax adduna kët moo dàq njabar xaaroota ak maaroota mi alxuraan di wax xaaroota ak maaroota ñu dayoon waar nañ ci ak njabar ba alxuraan di leen tudd seenu mën a njabar yént bi sala xam ne adduna leen dàq jabar ak njabar mooy yàq rek yàq mën a yàq adduna leen dàq yàq moo tax wax ne fa mu lay njëkkee njabare yow doomu aadama yi moom adduna fi mu lay njëkkee njabare mooy dalay wan moom adduna ne daa sax dëkk ak yow wan la it ne mi ngi fii du fi jóge moom adduna nga am jàmm am alal amuk wér sa léppuy dox foofu la adduna di wan ne maag yow ñoo ànd man daa fi sax du ma fi jóge mukk waaye nee na soo ko seetloo da gis ne da ngay jàpp ne moom dafay sax te fekk booba ma ngay daw wa hiya haaribatun minka ma nga lay daw naafiratun anka ma nga lay sori dànd loolu soree sori dégg nga di jeex rek te doo ko yëg nga nuur ci bànneex boobu mu lay wan ak jàmm jim la wan xéewal gim la wan nga jàpp ne moom mi ngi fi sax fekk moom ma ngay dem nee na njabar gi adduna njëkk a njabara doomu aadama foofu lay tàmbaleeg moom nee na bu ñu misaal adduna itam nee na daa mel na ak ker bu ko misaal misaal bu gën a jege daa mel na ak ker soo ko gisee dangay jàpp ne dafee sax su yor yoree ker yor yor gu su génnee nga toog fa di kerlu mu sedd lool dangay jàpp ne ker gi du fi jóge waaye buy naaj wi ñëw doo ko yëg doo wóola lu rek necc naaj wi ñaq tooy xib nee na àddina la mel noonu lay naxe doomu aadama mu ne waxu yamuru daa iman fa kadalika umrul insaan dundug doomu aadama noonu la mel mi ngi mel na kër gi nga toog rek buy dem doo ko yëg noonu la su dund gi mel yamurru bi tadrij ala dawaam wa yanqusu kulla laxwa jamono bu ne saa su ne heure bu ne sa dund mi ngi wàññeeku te li ci gën a doy waar mooy yow xamoo li nga am nu mu toll ci dund te mi ngi wàññeeku te doo ko yëg nga nuur ci adduna rek nee adduna yi nekk noonu noonu la lay tàggoo te doo ko yëg di la daw te doo ko yëg nga sàggane ko dégg nga nee na bokk na ci lim lay njabare moom adduna mooy lim lay yàqe mooy dalay wan ak cofeel ci yow adduna day wan ne dalaa bëgg moom adduna ngir nga xemmeem ku bëgg ko mu wan la it ne la moom dafay jàppale dafa lay dimbali wan la ne tuxuwuma du tuxu mukk maa ngi yow ñoo ànd tuma toxu jëm ci kenn mooy adduna bu ñu ko xamee alali adduna da ngay gis koo xam ne day am alal ju baree baree bari adduna jay ko ba mu jàpp ne duuti ñàkk day xëy xëy bis rek ñàkk alal ja alal ja toxu dem ci keneen fekk adduna nga ko doon nax nekk ci ne ko li ma la jox du ma ko nangu mukk ndekete lu mu la jox rek ci sa morom la ko nangoo jox la ko bu ëllëgee ma nangu ko cee jox sa morom noonu adduna bokk na ci ni muy ware noonu lay waree summa ta'udu aduwatan laka ala ghafla nga ne ci càggante googu mu del si doon sab noon far ba mu doonee sab xarit démb tey sab noon la dégg nga mu misaalal ko ci meneen misaal mu gën a jege ne àdduna daa mel jigéen ju kàccoor ab saay-saay jigéen joo xam ab saay-saay la kuy ware la war góor ñi la nee na adduna noonu la mel nee na saa su góor labatee ba dem ci moom ba tàbbeeg moom ci biir néegam lu wóolu lu dul rek mu war ko bocc ab gobar daal di koy jam rey ko nee na noonu la addunay def noonu lay waree dafa lay naxtaan ba nga dugg ko rek mu nax la njuuy la nga dërmeelu moo tax ñu ne Seydina Isa alayhi salaam euh, ci mukaashafaat yi mu doon def mooy nit yàlla dañuy am mukaashafa mooy suñ borom da leen wuññil yuy ñëwagut ñu di ko gis Seydina Isa bi mu ci tollee dafa gis àdduna ci melakaanu jigéen ju màggat ñu wan ko àdduna jëmmi adduna ci boppam àdduna jëmm la ñu wan ko ko ci melokaanu jigéen ju màggat dégg nga Seydina Isa laaj ko ne ko waaw yow soxna si yow ñaata boroom kër nga ma a am mu ne ko hii li ma am ci borom kër mu ne xaw mu ne su koo lim kenn xamut nu mu toll li ma am ci boroom kër kenn xamut nuñ toll mu ne ko waaw Seydina Isa ne ko waaw ñoom dañoo faatu bàyyi la fi nga amaat keneen wala dañ laa fase nga amaat keneen ba mu toll noonu mu ne ko déedéet ñoom ñëpp maa leen rey benn par benn kenn faatuwu ci bàyyi ma kenn fasewu ma maa leen rey benn par benn teñu mbooloo mu bari la ma xam ne kenn mënu koo peeg Seydina Isa daan ne waa ajaban li haulaai alxumqa alaxarina alladina yushahiduuna ma ma bi siwahum sanaati waxum fiiki raaxiboon mu ne yéem naa ñii ñëw mujjug jamono di ay dof yoo xam ne dañoo doppooral ënduñu seeni xel gis ni nga def ñi leen fi jiitu woon ba nopp ñu bi doo topp ñooñu day yéem naa seen dof gi loolu sëñ naa saa daanee la wax ja kon adduna noonu lay ware sëriñ bi dellu wax ne adduna ëllëg yebal xeyam dañ koy indi ci melokaanu jigéen ju màggat ju ñaaw lool bët yi kugg xeteñu ma xam ne day day day dagg ba ba mujj day day bëla bët yi day bula xar xar kanam gi foofu ñaawaay yem fa la tàmbalee moom adduna su ubbee gi miñ gi xet gi ciy génnee deesu ko mën a nooyi ngir ngir xet gu xet gu naqari bëñ yi day xuur ba mel ne mbaala mbaalam ndox mooy ndox mu yàgg fi barab ba wert noonu lay mel nee su ko mbindee fi gisee yomal xiyaam ba xool ko lu ñuy wax naouzu billahi minha yàlla na yàlla musal ci ci ndaw si ndaw su bon si yàlla ñu ci yàlla musal te ne adduna daane waaw jigéen ju ñaaw ju bon ji kana ma hadihi al qabihatu ñaaw ju bon kan la ñu ne leen kii day mooy adduna ji nga xam ne moo taxoon ngeen di iñaanati iñaanati ci seen biir moo taxoon ngeen di xuloo ci seen biir moo taxoon ngeen di reyante di tuur deret ci seen biir ci lu dëgg moo taxoon ngeen di dog seen ak bokk moom adduna moo taxoon itam poñeetum adduna moom yi moo taxoon ngeen di xëccoo bay reyante ci seen biir adduna mi ngi nii ñu daal koy digal moom adduna yàlla digal ko ne ko demal demal sawara digal ko yàlla kum digal nga dem doo werante mu daal aw yoonu sawara moom adduna waaye laata muy dem mu ne gees suñu borom ne ko yow sama boroom yaa ilaahi ayna ahibaa'i wa waa wa ashyaa'i waaye sama borom ana sama soppee ña ma soppoon ci adduna ana ñu ana ña ña àndoon ak man ana sama xarit ya suñ borom na ko ña mooy mbooloo mee de mu ne nañ ma topp suñ borom de leen topp leen ko ñu ànd ak ma wuti sawara wala yaasu billah yàlla na ci yàlla mosalub jàmm moo tax Seydina bokkoon ci saxaaba yi dafa nettali ne yonent bi sallallahu alayhi nee na dafa am bis mu wax Seydina Abu Hurayra ne ko ndax bëgg nga ma won la adduna ni mel da ko misaal na ko ndax bëgg nga ma ma misaal la adduna ni mel baloo ci waru sina awroy ne ko ah kay yaa rasulallah bëgg naa ko de nee ma jàpp saab loxo moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaxoon ba ca sën ba ñu taxaw maa moom ci sën bi nee na man ma xoolal nee na ma xoolal gis ay kaang kaang yi boppi nit yoo xam ne lépp jeex na ba yax baa ca des ay ay baaraami nit yu dagg ay sagar yu xotteeku ay ñam yu yuñ wetti ba mu forox ba kenn mënu koo noyyi ay faari mbaam lu ne ma gis ko fa ci bi mais mu ne ma bopp yi nga seen day moo na ñoo yéen ñoo fi newoon ci adduna di lekk di naan ñam wu forox wi nga xam ne mënoo koo noyyi mooy seen ñam yi ñu daan lekk faar yi ngay gis mooy fas yéen daan war di dem ca xare ya fu ne ñu jëm fa fu ne ñu fa lii moo doon seenu taar ci adduna gis nga tey fi ñu mujj mi ngi nii adduna nii la mel nee na ba mu waxee loolu ba ba daaneel seen waxure nee na dama dama simboo samay rangoñ di jooy nee na ña fa nekkoon ñëpp dañ doon jooy ngir xam ne adduna nii lay waree ci jamono Seydina Isa alayhi salaam dafa am ñett ñoo xam ne damay wax rek ni adduna di waree nit nga xam ne nit ki mën naa fexe ba bu mu waru ci adduna jamono Seydina Isa dafa am ñett ñu doon tukki ñu dem ba yàgg ñu for genn kees gu xaalis def kees gu fees dell xaalis ñu daan ne kenn ci nun na dem ci marché bi jëndal lu fa luñ lekk danoo xiif kenn ka daal dem ca marché bi di jëndi lu mu lekk ñoom ñaar ñu lal seen pexe moom it mu lal pexeem moom ma dem ca marché ba ka dem ci marché daan ne su ma jëndee lekk gi damay jëndaale posen def ko ci lekk gi mu ñëwee jox leen ko ñoom ñu lekk ñu dee ma jël kees gi yóbbu ñi ci des ne su ñëwee daal ñun ñaar nañ sexatoo rey ko léegi séddoo xaalis bi ci lay gën a sakkan xanaa gis nga ni kenn ku ne adduna tax na nga bëgg a rey sa moroom kee dem jënd ñam wa daal di jëndaale posen des ci posen bi ñëw taajal leen ndeke ma agsi rek ñu sëxatoo ko ñoom ñaar rey ko toog nag fa seen lekk seen ñam jël seen kees lekk ñam wa daal di dee tëdd fa ñoom ñëpp ñu dee gis nga adduna ni mu leen waree te ale la adduna leen ko yóbbee loolu amoon na jëy amoon na Seydina moo tax bu ñuy misaal mbirum dee ak mbirum alaaxira ak yi ci aju sunu borom subhaanahu wa taala dafa wax ne tabaaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli cheyin qadir alladi xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum wa ayukum wa ahsanu amala sunu borom day buur bu màgg la bu tedd moom mi nga xam ne moo man lépp am kattan lu ne mu man ko moo bind dee ba noppi door a bind dund kon la nga cey dégg yow nit ki mooy fawu nga dee ndax dee la yàlla njëkk bind ci dund xalaxal mawtoo la xayaat mu mel ne secret ba tax yàlla bind dund dee ba noppi door a bind dund mooy li yëpp lu ko moo ayiku moo ahsanu amala ngir ma examiner leen examiner leen nattu leen ixtibaar leen ba xam kan ci yéen la moo ci gën a rafet jëf adduna sun borom dañ fi indi ngir dinu nattu bu ëllëgee wal xiyaam mu natt kenn ko na say jëf ni nga xam ne élève bi leçon yi muy jël par bis par ay bis par nangami weer ñu def examen am ay point ba xam dafa naajaxla la wala rasib la mooy dafa admis wala dafa redoublé noonu la mel yowmal xiyaam mel bu ëllëgee liyabluukum ayyukum ahsanu amala dégg nga wa huwa al-azizul ghafuur kon adduna dannu fii nattu kon lu ma ta bàyyi xel la moo tax borom xam-xam yi wax ne moo ne day dee laysa bi adami mahdin wala fanaa fi déedéet dee taxu fii jóge dee lu doon mooy inqitaau taalluqi ruux bil badan wa mufaaraqatin wa xaylulatin baynahuma mooy ruux gi mooy teqale ko jëmmi jëmm ji rek doomu aadama jëmbam ji yaramam yi ci suuf la bàyyi ko suuf la moo tax sufaat nañu delloo ko suuf ruux gi yéeg kon ruux gi mooy teqale yaram wi tuxu feneen ci beneen barab ci beneen makaan nekk ci beneen xaala waaye du ceege ne nit bu dee dafa jeex déedéet jeexut waaye nag mu ne wa huwa a'zamul mooy musiba mi gën a rëy moom dee waaye wa a'zamu minhu al ghaflatu anhu li gën a rëy ci dee dee mooy musiba mi gën a rëy waaye dee musiba moom li ko gën a rëy mooy sàggane ko sàggane dee dee kenn du ko sàggane bokk yi wa huwa ashaddu mimma qablahu dee moo gën a tar la ko jiitu maanaam feebar ak sukuraat ak li muy metti metti dee ko gën a tar bu dee jàllale leneen la ca topp moo gën a tar wa ma ba'dahu ashaddu min moo tax ñu wax ne malakul mawti mooy Azrail mi nga xam ne mooy rocc ruuxi doomu aadama yëpp ak bindeef yëpp muy xar yeeg bëy yeeg sànqale yi sax mooy rocc seen ruux moom malakul mawti bu jëkkoon bi muy ñëw di rocc ay ca njëlbéen nga bu bu daan ñëw dañ koy teg bët dañ koy gis jëxëran dañ koy gis benn bis la ko Seydina Moussa alayhi salaam yonente yàlla boobu Seydina Moussa bi mu ne tëll rek Seydina Moussa aju ko mbéy tëll ba fukk bët bi moo tax buy ñëwati day day nëbbu tut kenn du ko gis mën naa dugg ci néeg bii fekk fi mbooloo mu bari rey fi kenn te kenn du ko yëg kenn du ko teg bët. loolu lu kiimaanaan lu xereñ la lu doy waar la moo tax imam Suyuti yi sëriñ bi nee wax na ci téeram bi ñuy wax Bushra al bi liqaa il mawla al téeram boobu wax na ca moom imam Suyuti yi ne xadis boo xam ne ci bilaalum nu Saad la ko jëlee mu ne innakum lan tuxlaqu lil fana wa innama xuliqtum lil abad wal xuluud yéen doomu aadama yi bind ñu leen ngir ngeen i jeex dañ leen bind ngir ngeen sax fi béel fi béel mooy nefi te doo fi jóg loo tax ñu bind leen walakinakum tantaqiluuna min daarin ila daar waaye li am kay mooy da ngeen tuxoo ci kër gi dem ci geneen kër rek mooy da ngay tuxoo fii dem ci kër gee rek mooy tuxoo fii dem ci geneen kër gi war Ibnu Xayyim ne doomu aadama bakkanu doomu aadama ñetti ñeenti kër la am nit ku ne ñeenti kër nga am kër gu ci nekk moo gën a rëy ga ko jiitu ñeenti kër yi doomu aadama def am xanaa day ne ci kër gi tuxoo fa dem ci kër ga ca def tuxoo fa dem ci këru ñetteel ga tuxoo fa dem ci këru ñeenteel ga kër gam njëkk a nekk ga ca topp moo ko gën a rëy ga ca topp gën koo rëy ba keroog kër gu mujj ba mu ne kër yi mooy lan kër gu njëkk gi mooy lan batnul umm biirub yaayam mooy kër gu njëkk gi mu njëkk a dëkkee moom doomu aadama biirub yaayam gis nga ni mu xate mooy kër gi mu njëkk a sañ ci dëkk ko waaye diir bu gàtt du yàgg juróom-ñeenti weer mu toxu ci kër googu génn ñëw ci kër gu gën a yaat mooy adduna adduna kër googu moo gën a yaat dégg nga su fi jógee biir bi yaay mooy mahalul xasri wa dayq moom dafa xat wal xamma wa dulma waaye këru ñaar li mooy kër gi nga xam ne ci la sosoo màgge fi ba toll li mu war a toll dund fi ni mu fara dund ba jóge fi mooy daaru duniya mooy ñaareelu kër gi moo gën a yaatu biirub ndeyam dégg nga nga xam ne fii ci kër googu nag ci lay fàggoo lan alxayra wa shar ci lay fàggoo lu baax ci lay fàggoo ab safaan itam ci kër googu la koy fàggoo moom kon moom kër gu ma ta fonk la moo tax bu ñu naan adduna mu solo déedéet ak am solo ndax ci ngay lu baax waaye ci ngay juume ba def ab safaan te lu baax loolu moo lay jariñ fële ëllëg safaan ba moo la fay lor kon lu ma tawatandiko la ñetteelu kër gi mooy lan albarzaq su jógee ci kër gi dem barsàq barsàq ni adduna gën a yaatoo biirum ndeyam noonu la barsàq gën a yaatoo adduna barsàq ni adduna gën a yaatoo biirum ndeyam noonu la barsàq gën a yaatoo adduna dégg nga waaye aw son min hadihi daar dégg su ca jógee dem ca kërug ñeenteel ga nag mooy lan daarul xaraar kërug sax ga foofu moom dafay sax du fa jóg waaye aljannatu wannaar mooy àjjana mbaa sawara rek wala yasubillah yàlla nu yàlla tàbbal ci bu njëkk ba tamay àjjana te musal ni ci sawara walaha fi kulli daarin min hadi duur xukmun wa shanun geyra shani l ula nee na kër gu ci nekk ci ñeenti kër yooyu am na ci ab atte bu ca tolloo lañ luñ koy attee xam nga ki nekk ci biiru yaayam moom amagul bàkkaar kenn toggu ko jëf kon ëttewuñ ko ci dara bi mu nee ci këru adduna gii di door a juddu kenn topp ko dara kenn tëb ko dara ba ba muy mesure ñu door ko togg jëf tàmbali ko topp bu jëfee lu baax ñu fay ko bu jëfee safaan ñu bind ko su ko tuubee yàlla jégal ko su ko tubut bu yemal xeyaame dajeek suñu borom wala billah su demee barsàq jeexal na lu mu doon jëf nekk foofu di dund lam la mu yoroon su jeexee muy maw ni mbëtt di def ba keroog yemal xeyam péncu bi yàlla kenn xamul kañ la koy taxawal fi mu toll nii àjjana ubbeeku di buntam sawara ubbeeku di buntam ba yàlla sosee adduna ba nëgë ni ajjana ubbeeguti buntam sawaru ñépp nga bar sàq di xaaree tëraay boobu kenn xamut nu mu toll kenn xamut ñaata million ngi at la kenn xamut kon moo tax adduna mata waajal barab boobee dégg nga euh, ba tey jëlee nañ xadis boo xam ne mursal la ci amru ibn dinaar mu a dafa am benn waay boo xam ne daa faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne asbaha hada murtaxilan min addunia fa in kaana qad radiyallahu anhu fala yasuruhu an yarjaa ila dunia kama la yasuru ahadukum an yarjaa ila batni ummi dafa am jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku faatu yonent bi day néew bee day néew bële moom day toxoona fii fi adduna su fekkente ne yóbbaale na ngërëmal yàlla su fe su dee yóbbaale na ngërëmal yàlla amul leneen lu koy bëggaloo ci muy dellu siwaat adduna mooy dellu siwaat adduna du ko neex su dee ma ngay nee di dem yóbbaale na ngërëmal yàlla dellu siwaat adduna neexu ko naqare na ko lool ni nga xam ne doom yow mii ni nga toll di muskal la ni nga xam ne ni nga bañee delluwaat ci sa biirub ndey doon ab liir ni nga ko bañee noonu la néew bi am ngërëmal yàlla jëm àjjana noonu la bañee dellusiwaat ci adduna kon adduna kër gu ñu toxoo rekk la loolu la bëgg dee tamit ci boppam dee am ay ngëneel dee dafa am ay ngëneel doy na ci sëkk wax yonent bi alayhi salaam ji wax ne tuxfatul muminil mawt nee na neexal bi duun bi suñ borom di neexal ab jullit ku gëm yàlla nee na mooy dee dee la yàlla di neexale ab jullit waxaat ci beneen xadis ne al mawtu rayxaanatul mumin dee mooy parfum wala fleur bi gën a rafet bu ñuy wan ab jullit mu di ko bànneexoo ci xolam dee jullit bi waxaat ne al mawtu ganimatul mu'min dee koomum jullit la am koomum la kon ngëneel la ci jullit bi mu xaat ci benn xadis ne yakrahu ibnu aadama al mawt wal mawtu xayrun lahu min al xayaat doomu aadama daa bañ a dee te dee moo gën ci moom ndax wax na feneen ne al kafaaratul muslimi li kulli muslim nee na dee day kafaaraal bépp jullit mooy day far bàkkaar yi ab jullit waxaan ne maa min ghaibin yantadiruhu almumin xayrun lahu min amul kenn ku tukki woon koo namm di ko xaar ku gënal ni ab jullit di xaare de ab jullit bi gëm yàlla dëgg-dëgg ni muy xaare dee ni mu koy nammee moo raw fuuf koo bëggoon lool mu tukki tukki bu yàgg nga di ko séntu yàkkamti mu ñëw jullit bi xaar dee moo ko raw ma tax Abu Darda radiyallahu anhu bokk saxaaba yi mag yi te guddoon aw fan lool nee na ma min muminin illa wal mawtu xayrun lahu amul benn jullit bu gëm yàlla lu dul dee ko gënal bu xamee boppam dee ko gënal daan ne wama min kaafirin illa wal mawtu xayrun lahu ab yéefirit de moo ko gënal xanaa ñaar yooyu xam naa doy waar de nee na amul jullit boo xam ne amul benn jullit bu dee gënalut waaye amul benn yéefar bu dee gënut ci moom amul benn jullit bu dee gënut ci moom waaye amul benn yéefar bu dee gënut ci moom mel na loolu ab laaj daa samp lu waral loolu mu tontu moom Seydina Abu Hurayra Abu Darda ne képp koo xam ne lii ma wax dëggaloo ko may danga nga koo weddi li ma wax danga nga koo weddi jàngal aaya suñu borom ji alxuraan ji suñu borom nee na wa ma inda allahi xayrun lil la fa yàlla moo gën fuuf ñeel way ragal yàlla yi mooy ñu baax ñu baax ñi leen yàlla dencal moo gën li ñu li ñuy nekk fii fi adduna kon dee moo gën ci jullit daa wax ne wala yaxsibanna alladina kafaru annama numli lahum xayrun li anfusihim li yazdaadu ithman wa lahum adabun azim adabun muhin nee man yàlla alal ji ma leen di jox seen lépp baax ñu am seeni i bien ab yéefar fi mu moo lay gën a wér moo lay gën a jekk adduna moo lay ëppale alali adduna léppam day dox du feebar daanaka du jaaxle dara lépp day dox nee na alal ji ma leen sotti ñoom yéefar yooyu bu benn yéefar jàpp ne loola sama yërmandeem baa dama leen koy dimbalee déedéet loolee ma leen di jox lu ma ci jublu mooy dama caa jublu ba ëllëgee ma mën caa sukkandiku mu mbugal leen mbugal mu tar kon dee moo gën ci jullit dee it moo gën ci ab yéefar ndax ab yéefar lu fi gën a yàgg rek mbugalam gën a tar fa ëllëg yomal dégg nga si naa Abu Hurayra Abu Darda wax ci xadis boobu mu nettali Ibnul Mubaarak dafa jële ci eh, Abi Utayya mu wax ne ana amul naasi jasadun fi laxdi qad amina min adabillah yàlla na ko yàlla defal nee na ci ci ëpp xéewal ci nit ñi mooy néew guñ teg ci jaat jëme ko barsàq teg ko ca biir bàmmeelam nee na néew boobee jul ko ko te fekk booba mucc na ci mbugalum yàlla néew bu yóbbaale ak mucc mooy laissez-passer am na laissez-passer ñu yeenu ko jëme ko ca barab ya nee na kooku moo ëpp xéewal ci nit ñi moo ëpp xéewal ci nit ñi ndax adduna xéewal yi fi nekk du dara du dara ci yomal xeyam xanaa xamoon ne jigéenu xoolaan yi nii bu ñu yërndu woon adduna tafli képp tafli ci adduna suuf sëpp day saf suukar suuf sëpp day saf suukar seenu leer genn bu xel mitoon ci àdduna mooy góor ñëpp duut ñu ñu man dara duut ñu man dara dañuy tële ndax seenu melokaan kon adduna du dara ci yomal xiyam du dara ci ëllëg yomal xiyam moo tax benn waay ci baxarul kaamil daa dajale wax yooyu yëpp tënk ko ci ñaari bayit xad qultu id madaxu lxayaata fa aktharu fi lmawti alfu fadilatin la tu'rafu minha liqaaun liqaauha bi liqaa'ihi wa firaaqu kulli mu'aashirin laa yunsifu laa yansifu waaye nag buntu xoo ci tom boobu kon ñu tudd nag lenn ci musiba yi dee dégg ak muñ ko dee dafa am musiba lu ma tabat wattandiku la dee nit mën naa faatu ñim fi bàyyi am ci bàkkaar boo xam ne kenn xamu nu mu toll te lu néew leen koy yóbbe kon lu ma ta xam ne tama tawatandiku dañoo wax ne képp koo xam ne suñ borom da koo nattoo am mbokkam mu faat moo xam baayam la faat wala ndeyam mbaa doomam mbaa soxnaam wala boroom këram wala xaritam tax ko muy fëgg ab dënnam di mbëkk ay garab di xus ay karawam di xotti ay yéreem ngir naqarlu lool yi nee na ni mel mooy daa mel na ku jël ab xeej jëm ci boromam suñu borom ngir xeex ak moom dangaa mel ne dangaa jël xeej di xeex ak yàlla xam nga ne yàlla ku ko jël xeex xeej di ak moom xam nga ne lay tooy ci yow lay bàyyi ko lay tooy ci yow lay bàyyi ko kon yuuxu ku faatu ku dee nga di ko yuuxu musiba la lu mat a wattandiku la rawatina nag li xew léegi bay sa ci suuf ak wuy fu ma jëm ak torox nañu ndax moo la yoroon ku ne yàlla la yor gimiñ gu yàlla xar dana ci tabal fepp bu ko dundal ku jeexal jóge fi kon nit lu foor foor ci yow bu mu faatu mukk ngay yuuxu di xus sa karaw ko xott sa yére ak di def yëf def ci wax ne torox nga loolu ëpp naa def nee ñu ku ko def ku ne danga ngaa mel da ngaa jëlub xeej jàkkaaru yàlla fa yéene xeex ak moom te xam nga liy tooy ci yow lay bàyyi ko Seydina Xuseynu sutub yonente bi la sallallahu alayhi bi mu faatoo soxnaam daa jóge ci kër ga sañc ba sanc ca barab ba fañ ko denc am atum lëm mu nekk fa def liantikaaf ne fa rek di ko jooy ak ak ay xaritam ñu nekkal ko nekk fa atum lëm mu ne ci baru Seydina Xuseynu di jooy di ko jooy ngir nam mu tolloon ci moom ba at na matee wala takkaat ay bagages am delluwaat ca kër gaay moo ñu màndaloon nekk ñu ne wëy rek ñu dégg ca wetu bàmmeel ga ne genn kàddu gu wax ne hal wajadoo maa faqadu waa ñoom ñii doon jooy atum lëm ndax tax na ki ñu doon jooy dellu si ndax jotaat nañ ci geneen kàddu tontu ca wet ga ne déedéet dañoo naagu moo tax ñuy delluwaat ca kër yi naagu nañu duñ jotaat kon jooy ku faat taxul mu dellu si bu doon loola am na ñu la dàq jooy foofu xoola ki tëdd ci barabu borom këram atum lëm di ko jooy ba delluwaat ci kër ga barab bi di wax ak moom naan ko ndax li nga doon jooy jot nga ci wet ga ca des di ko ñaawal naan ko déedéet daa naa ko képp moo tax mu delloo ci kër xam na di ci jot kon ku ku faatu dees ko yuuxu déedéet musiba la sallallahu alayhi wasallam na man sawwada baaban minal al musiba aw xaraqa thawban aw alaq aw xalaqa chaaran buniya lahu bi kulli chaaratin baytun fi nnaar fa ka annama sharaka fi dami sabina nabiyan wala yaqbalu llahu lahu sirfan wala adalan ay fardan wala sunna wala naflan ma dama dalika sawaad ala baabihi wa dayiqa allahu taala alayhi qabrahu wa shaddada alayhi xisaabahu wa laanahu kulli yawmin malaikatu samawati wal ard wa kutiba lahu alayhi alfu alfu xatia wa qaama yowma alqiyamati min qabrihi alay uryaanan wa man xaraqa jaybahu xaraqa llaahu diina wa man latama xaddayhi xarama lahu alayhi wala ngay xus sa karaw ngir ne danga ngaa faatule xam nga lan la ca feyee nee na gépp karaw goo xusoon nu karaw ga toll karaw gu ca nekk des na la ca tabaxal génn kër ci biir sawara génn kër ci biir sawara benn yëmu ca de waaye nee na mel nga ne ki def loolu nee na mel na ne ku fekk juróom-ñaar fukki yonent yooyu ñu rey nga nga bokk ci ña ko doon rey te xam ngeen ne rey yonent ak paye mooy dem sawara ab yonent bu la reyee nga dem sawara boo ko reyee dem sawara ab yonent kum rey nga dem sawara ku ko rey dem sawara te ku def loolu nee na mi ngi mel ne bokk nga ci juróom-ñaar fukki yonent yu ñu doon rey nga ànd ca ca rey ga wan yaasu billaah yëmu ca waaye nee na yàlla duutul nangu sa farata duut nangu sa naafila sa sunna boo jullee te farata mbaa farata joo def yàlla nangu ko sunna soo def yàlla nangootu ko li feeg lu ñuul loolee nga def maa ak yow nee na yàlla du ko nangu te yemu ca de nee suñu borom day xatal sa bàmmeel lool taral sa xisaab malaayka yëpp bés bu ne malaayka yi di la rëbb te rëbbu malaayka mooy ñaan la ñaan la yàlla boo am yërmande yàlla te malaayka ñaanam suñu borom du ko delloo dégg xatal sa bàmmeel yemu ca waaye nee na suñu borom dana ko bindal moom waa ji def loolu junni junni ñaaw téef te bu ëllëgee yamal am bu dekkee ci bàmmeelam yaramu nen lay na ko ndeyam jure woon lay mel du sol dara dara du ko wër noonu lay mel ñëpp dañ koy xàmmee mu daa teg ne képp koo xam ne danga am ku dee nga daal di xott say poos mooy rek xott say yére nee na yàlla xott na sa diine amatoo diine nee na ku am ku dee rek jekk-jekk di pes sa bopp ko def yëpp nee na yàlla araamal na ci ci sa bët bii yamal xiyaam sa bët du tege ci jëmmam ju tedd ja subhanahu wa taala te xam ngeen ne gis yàlla moo dàq dugg àjjana gis yàlla moo dàq dugg àjjana kon de moo tax ma wax ne nit mën naa faatu ay nit ñim fi bàyyi am bàkkaar bu rëy ci faatam kooku mu faatu te ñàkk xam a koy waral nit ku dee dee su ko yuuxu lu ma tawatani ko la lii lay jur yent bi sallallahu alayhi moo ko wax te waxam du dañ sallallahu alayhi wasallam day bi doomam Ibrahima faatoo xam ngeen ne doomam yu góor yi mennam Ibrahima rek la ci Xadija jurul ku ñuy wax Maariyatul Xibtiya muy soxna suñ ko joxoon mooy way juróomu jigéen ci ak ndawam la dem la faatu moom Seydina Ibrahima moomu doom yonent bi sallallahu faatoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay bëtam daa taa ay rangoñam di tuuru muy jooy ay rangoñam di tuuru sëñ na Abdurahmaan ibn Awf kenn la ci saxaaba yi ne ko waaw waaye yow du yow yaa nu tere woon jooy ku dee ngay jooy mu ne ko déedéet lii du jooy de jooyu ma maanaam yuuxu laa tere waaye rangoñ yi di tuuru du dara lu dul yërmande a joo xam ne suñu borom moo ko tàbbal ci bépp xolub ku am yërmande ku am yërmande ku ne bu gisee ku am aw naqar rangooñam day tuuru nee loolu rek la waaye yuuxu laa leen tere waaye terewumu leen tuur ay rangooñ déedéet tuuri rangooñ ki ci ku faatu terewuñ ko waaye yuuxu loolu lañ tere loolu sama xam jàngale keroog daal cay teg ne ca waxam ju tedd ne alxalbu yaxzanu wal aynu tadmau wala naqulu illa ma yurdi rabba xol bi day dana jàq lool ngir sama doom ji faatu rangoo ñi dana tuuru waaye du ma wax lu yàlla gërëmut du ma yuux du ma fu ma jëm du ma ne leen kon noonu ab jullit bu amee ku faatu xolam mën naa naqari metti lool ndax fa mu toll ci yow say naa tuuru waaye bul wax lu yàlla gërëmut fu ma jëm ak torox na maag yooyu yëpp du lu yàlla gërëm lu ma tawatandiku la Seydina Abu Xanifa dafa waxoon ne an nawxu xaraamun yuuxu day lu araam la yuuxu lu xaraam la waaye nag wala basa bil bukaai ala al mayit bi dumoo waaye terewuñ jooy ku faatu ci ay rangooñ say rangooñ di tuuru loolu terewuñ ko waaye nag mu ne walakin sabru afdal waaye muñ ko nag bañ a jooy mooy li gën li anna allaha qaala innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bi xeyri xisaab sun borom dencal na way muñ yi seenu pay te du desu leen réglé bu ëllëgee ma xiyaam ñi doon muñ naqar yi leen yàlla tegoon kenn réglé seen biir wéy leen àjjana rek lañ leen di wax kon looloo gën fop moo dàq ku man moo gën ku mënta bañ a jooy nag tuuri rangoñ na ca yem waaye yuuxu ko def soo mënee bañ a tuuri rangoñ mooy li gën muñ ko rek te yàlla tax euh, yonent bi salaam nee na xalim suñ borom ngay bind ca lawxul mahfuus lam njëkk a bind ca ca ca ëllëg ja ci ndigalal suñ borom mooy ana allahu laa ilaha illa ana muhammadun abdi wa rasuli wa xiirati min xalqi man istaslama li qadaai wa sabara ala balaai wa shakara li nicmaai katabtuhu siddiqan wa abaatuhu maa siddiqin yowma alqiyaama wa man lam yastaslim li qadaai wa lam yasbir li balaai wa lam yashkur nicmaai fal yaxruj min taxti samaai wal yatlub rabban siwaai yenn daal nee na xalima suñu borom nga lam bind ci lawhul mahfuz lam njëkk a bind ci ndigal yàlla mooy lan man maay yàlla yàllaa ko bindool ne ko bindal ne man yàlla yàlla man rek maay yàlla keneen du yàlla Muhammad mii sama jaam la sama ndaw la maa ko yónni moom laa tànn ci mbindéef yi mu gën ci bindal loolu mu noppi mu ne ko bindal ne képp koo xam ne sant na sama xéewal yi képp koo xam ne nangu na saab dogal muñ sama balaa yi ma wàccee ci moom sant xéewal yi ma ko jox nee na danaa ko boole ci siddiqiin yi tey boo liggéey mal xiyaam siddiquune yi ñoom ak ñoom ñooy bokk dekki te siddiqiin mooy ñeenteelu martaba bi alxuraan di lim maratib yi daraja yi mina nabiina wa siddiqiina wa shuhada la ci teg kon nabiin siddiqiin ñoo ci topp mooy ñaareelu daraja ba bi yonent jàllee rek siddiq daraja siddiq moo ci topp kon daraja ju kawe la te nee na ki def lii ku muñ balaa yema ko teg nangu saa dogal di sant xéewal yi ma koy xéewale ma boole ko siddiixoon yemal xiyam waaye nee na ku muñul nag sama ku nanguwul sama dogal mu ñëw balaa bi ngay wàccee ci yow santoo samay xéewal nee na kooko kaay génn sama ron asamaan sama asamaan si moom mu la tiim moom génnal sama asamaan maa ko moom génnal asamaan si waaye boo génnee wutil beneen boroom bu dul man foofu nag fa la jaaxle yam moom génn asamaan képp xamu foo koy génne waaye wut jeneen yàlla judul yàlla foo koy wutee nee na génnal sama asamaan te wuti jeneen yàlla judul man beneen buur bu dul man fal yaxruj min taxti samaa'i wal yatlub rabban siwaa'i wutil génnal sama ron asamaan te wuti jeneen yàlla judul man kon lu ma ta bàyyi xel la sëñ na àll yu day neewoon na muñ ñetti xaaj la muñ ñetti xaaj la karam la wacca sabrun ala taatillah muñ topp yàlla dañ koy muñ bu julli daa metti koor daa metti joxe sa alal daa metti saraxe daa metti dimbilee daa metti muñee tax nga man ko dañ koy muñ ak lan sabrun anil ma'siya mooy yàlla dafa neex ba neex la daa neex muñ ko mooy tax nga doo ko def wa sabrun alal balaa balaa dafa metti am nattu bu yàlla teg jaam bi teg koo métit daa metti loxo képp bu la ko yàlla tegee doo nelaw guddi waaye muñ ko mooy ñetteelu xaaj bi mu daal di wax ne képp koo xam ne euh, muñ na ak mooy yàlla ba liggéey mal xëyam suñu borom dana ko jox ñetti téeméeri daraja te daraja yu ci nekk mi ngi toll ne diggante asamaan ak suuf noonu la noonu la daraja yi toll ku muñ ak mooy yàlla waroon na mooy yàlla muñ ko te yàlla tax bu yemal xëyam suñu borom jox la ñetti téeméeri daraja yoo xam ne daraja yu ci nekk diggante ak moroom ja toll ne na asamaan ak suuf ci biyaatu ci ci daan na ku muñ ak topp yàlla nee na ëllëgee ko jox lu toll li mu joxoon ko muñoon lee waaye ku muñ balaa nag balaa musiba yàlla te ku ko muñ suñu borom dana ko jox juróom téeméeri daraja daraja yu ci nekk dana toll diggante aras ak taxta sara mooy fa ci suuf ak fa aras nekk yi noonu lay toll nga am ci juróom xam naa nu tënk day mel la waxtu wi mi ngi xocc dañuy tëb lu bari rek te boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyeekoo.